ñu nuyu leen bu baax siyaar leen jaajëfal leen baalu leen àq di leen baal ak di ñaanal suñu bokk ento di saa su nekk mbégte la am suñu waree jàkkaarloo yéen ci chaîne bu mag bi nga xam mooy Dakar People comme ni ñu koy defee spécial lamb mais ku ne xam ne ne tey ñëw nañ fi nga xamante ne mooy Pikine Euh, di seet ñëw fi nga xamante ne mooy Pikine boo Niang numéro 2 moo woote nag open press bu rëy a rëy rëy macha allah ku ne gis na open press bi demee mu am combat boo xam ne macha allah le premier janvier la moom ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo roi des arènes borom Parcelles Assainies waaye nag ki ñu toogal bokk na ci koo xamante ne nii ku jege boo Niang numéro 2 la ndax ku ne xam ne préparé le premier dafa xaw a métti li tax mu xaw a métti mooy roi la ñu teg. te waa Parcelles roi bi day des Parcelles waa Pikine roi bi fii lay des dina fi des wala du fi des loolu lépp nañ ci indi ay leer ayca dama koy jox mu yoo Lambalogue après ñu nga wëyal ñi nga xamante ne waxtaan ayca Lambalogue nuyu naa maa ngi lay eh, maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaa ko ñaanal famille Lamb ak lu Lamb di ko ñaanal képp kuy Pikinois ak képp ko safoo Boy Niang di nuyu ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla may ñu ndam ci bis bi ñu jëm di wax nit ñi képp ku bëgg Boy Niang nga dolli say per ak say kurus ñaanal ñu yàlla may ñu ndam ci le premier janvier si kàttanu yàlla ay ca Boy Niang ñu gis tey open press bi nga xamante ne boobu ñaa moom la woote fi nga xamante ne Alassane Djigo noo gisee tey open press waaw open press ni ma ko gisee mooy dal na xel sedd na suñu xol parce que Pikine génn nañ mobilisation am na mag ñi génn nañ mbëru Pikine yi génn nañ mbër mi génn na ànd ak fuulam journaliste yi ñëw nañ ak lu làmb ñëw na làmb moo fi feeñ rek te Pikine moom ñëpp xam nañ ne c'est la pikinité làmb feeñ na Boy Niang am nañ yaakaar ci moom parce que woote na mbuy mbooloo fekk si ko kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko encouragé di ko xamal ne bis bi ni ci ni ñi tege seen bakkan fu mu woote ñu fekk ko fa nako ko tegee bakkanam ci biir géew bi bu mu may grand bi dara bu xeexee mu duma ko bu bëree mu jàpp ko daan ko sànni ko ci àll ba waaw. ay ci état de forme bi booy ñang indi tey noo ko gisee. waaw état de forme bi alhamdulilah rabil alamin yàlla na yàlla xeeb doole yàlla gën a yokk bu ci dara wàññeeku ba jour combat bi yàlla na état bi di gën a yokku car macha allah ku ko xam-xam ne athlète la naturel na du day entraîné lekk récupéré jëlul produit jëlul ay piqûre jëlul dara loo xam ne day yokk yaramam wala muy indi loo xam ne c'est surnaturel mhm. moom du def loolu day koy teg si axe mhm. entraîné normalement lekk tëdd mhm. nopp lu jël temps am hygiène de vie bu correct bu normal waaw. ayca lambalo ñu gis euh, ki nga xamante ne mooy Modou Lo dafa duggoon Pikine ci Eumeu Sène am fi ñaari ndam. Mhm. duggaat Pikine ñu teg roi mu duggaat Pikine ci Ama Balde. Mhm. mu échoué mhm. Ama ñàkk. mu ñëwaat war a duggaat Pikine. muy le premier janvier. ah te avant boobu duggoon na fi ci laay bay ak Xaadim Diallo. mën nañu wax nag am na fi six. am na fi cinq victoire léegi nag waaw dafay war a duggaat yàlla mooy dogal doomu aadama say adversaire nekk ci benn gox. Mm. nga fay dugg di leen daan mm. nennu leen mm. wala nga mën leen wala nga xam seen sarax booy ñaam mi ngi mel noonu waay ndax de na fa cinq mbër yoo xam ni ñii mbapat la leen daan sept yi daan na Fadam Tou foofu daan na Lamine Golo Aziz Pambaay Marle Eumeu Sène Junior si mbapat daan fa ay Aykon Mbis Sa Kajoor Les Guy gi Sa Thiès Balla Gaye te terewul ba muy tegale di leen daan ay adversaire am dafaa nekkoon la déggee rek la fa bëreel perte par recours kon làmb moo demee noonu mi ngi ñuy daan nag waaw soxorewuñu ko mi ngi ñuy daan mérité na ay victoire am waaye komba bii nii ñu jëm nii ñun ñu dëdmal ko ñor nañu intéressé nañu te lu mu ci indi ci wàllu bëre ak wàllu bagaar ak wàllu xeex du doy barke seen sees saal bi mu indi dina fa fekk junni ci booy bi fu am fukk rek booy bi am na junni toog di ko xaar waaw. ñeneen nee la teg biir Pikine mbëru Pikine bu génn mu duma la daan la dox si sa kaw attaqué la duma la daan la mu des nag kenn koo xamante mooy Boy Niang numéro 2 nee na le premier incha allah ñëw dox ci kawam duma ko daan. combat bi Boy Niang 16 bi Modou Lo teg biir Pikine Boy Niang bu nee bëreet ñëw day duma Modou Lo jëlee ko ci 16 bi maanaam 16 ba làmb ji da koy duma daan parce que Modou Lo tànk bi teg ñun xam nañ ko gauche lay teg boo ñaari teg droite ñoom ñaar bu demee latéral arrangé wul Modou Lo suñ ci kaw benn benn arrangé wu ko affaire de bëre ji ne rek la fa mën a bëre sëgg di di rap ak di waaf di indi ay laaw ci kaw ak ci suuf te loolu daanul booy bi ndax booy bi dafa vigilant rap rap yooyu nag muy daanee mbëri du ko daanee kii ndax ki kuy rap rap du ko daan kii moom xamal lu ko mën a daan si làmb ah. comme nga mel ne dëxin gu ñu tay rek taxaw fi nga taxaw ne zëng jéemoo dara waaw loolu mën nga ko daan ngeen jàppante yooyu ngay xaar muy xaar ak yooyu noonu mm. waaye su fekkee da ngay ñëw di teelu teel leeg rappi rappi mel na jinne jommi mm. barke sax saat bu doo ko daan ndax bëre ba ngay bëre jaaxalu ko comme si jàpp ci biir bëre action bu mu def ko dindee mu def beneen boo xoolee brise de bi ak dolfa bi nga xam ne Boy Niang dafa bëri bëri bëre boo xoolee les deux nga xam ne boo Niang daa bëri da ko yóbbu côté gauche ka ko jëm ak moom ne bi muy daan Dolph gis nga ko da koo crossé te daa koy fóbbanti Dolph fuddutu mu dugg ci gardam yéeg ko ca xabal bi muy bëri Brise de Mer bi mu ne ko coppet weñ ko mu bañ da koo indi mu bañ mu teel ko mu bañ mu siggéeg moom ci kaw daa koy yéeg ca xabal remplacé ko ci suuf mu jaaxal Boy Niang junniy bëre la yor bu mu def nga dindi ko mu teg beneen te kii nii balaa mën a bëre nga àgg ko fa sori mais Boy Niang mooy mbër moo xam ne fu mu la àggee fa sori seen waa kër jour boobu duñu bu ko àggee fu sori ak rëppam yooyu muy def ak xeexu gumbaam boobu barke Serigne mere boppam boobi dina daan ba damm ko bu ko àggee sori da koy dugal sax top 5 fanaan ko duma ba damm ko boo ñaa ko xeexal duma na la kan moo a duma ci làmb ak kan moo ko mës a dóor na fi mbër mu daan te Modou Lo na fi kan de bi muy dóor les deux mu daanu sax xoolu ko bu baax daa dajeeg moom rek dóor ko kuuba mu ñëw bi muy dóor kayre mu daanu tamit daa gëmm di jeex ba dóor kayre mu daanu penseur la mais xeexu fi xeex bu ordonné ba dóor la nga daan day jeex ba dóor la nga daanu. xeex na fi xeex bu ordonné. xeex yi mu na Pape Sène coup bi ko booy ñaar remise mu wàcc Pape booy ñaar da ko dóor mu daanu te da koo remise coup mu wàcc mu fel ko Sa Thiès bi mu ñëwee booy ñaar daa dugg ci gardam dajeeg moom bi muy fëgg dënn bi dóor ko coup tel guy gi booy ñaar da koo teg si axe bëreeg moom ci premier round bi li mu ko ci dóor ëpp na ne coup yi day ah après guy gi bi mu demee ba toqi deuxième round bi booy ñaa bi mu ko jàppee mm-hmm. da koo weñ mu tëdd parce que da koy teg si axe mm-hmm. ci bagaaral dina la dóor coup te bu la jàppee da lay daal mm-hmm. te kuwam day dal parce que coup bi day am foo xam ne fa la jëm coup déterminé lay doon waaw. boo ñaatee tey soo ko doon bëreloo contre diggante ba loo koy bëreloo. li ma koy bëreloo xam na ko wax nañ ci waxati ci waxati ci du loo xam ne dañ koy étaler ci presse waaye combat bi maanaam li la mën a xamal mooy lu mu jaral grand bi da koy jaral rek bu tegee ataaya da nga koy teg bu jëlee temps nga jël sa temps lire combat bi am lecture de combat. waaw tekkatu ataaya la day jël temps waa waa waa day calculer parce que mbooloo ne si ginnaawam. xale xale day calculer làmb xel la du kaaru xëbër xëbër ak doole ak xaru. làmb du xaru da ngay teey ba jëflante jot nga jëflante bu songu jotee nga songu bu bëre jotee nga bëre. boo am na foo xam tam boo fa tolloo waroo xaar nga ñëw war a prouver. déedéet dëgg la prouver mu weesuwul koo bëreel moo la sut moo la ëpp. koo bëreel ba nga daree bëre ba tey ñëpp sut ëpp la sos nga fi mës a sut ak Modou Lo sut ëpp la heure boo jëlee combat a ngi koy sacrifié papaam da koy reylu ki ko booleel te buñ ca àggee yaay daan ba toog ca dënd ba loolu kay prouvé mënu koo woysu ak boo ñëwee fecc mu neex boo ñëwee indi mobilisation indi indi supporters doy arbitre sifflé nga wane sa bopp daan jël bu te dooy daan doo daan lu ndax neuf combats top cinq ko am champion nga bu ko gars te dimanche sa lundi la gën a jox loxo. parce que Modou boo xoolee contre Ama Baldé arbitre dafa sifflé Ama Baldé dox ci kaw Modou Lo foo jaar nga ñam gauche droite bi. waaw nga ko ñam dëgg la waaye daas daa dafa am noo koy ñemee rek daa am nuñ koy ñemee rek. daam am booy taxawee ak nooy xeexee ak noo koy songee ak bu la songee ni nga koy teeroo noon ah, loolu loolu la lay dumaa rek mais ku mel ne booy ñaa nga xam dalay xool booy dóor bu lay dóor dalay xool boo nee bëreet dalay xool dafa vigilant am sérénité am calme am dal am concentration si adversaire bi du moo xam ne da nga koy xupp ay coup boo ne jëyi sax mel na ku jëm ci suuf day day garder sérénité am ak lucidité am nekku xabar xabar yooyu de day det grand bi lu mu indi fukk fekk fi téeméeram. ah grand bi nee na magu ko lu bari waaye génération la mais tamit lu mu dee dee moo ko sàcc rek. moo ko sàcc ndax bi muy bëree bëreegul bi muy dugg arène duggul arène bi muy bëree mbapat bëreewul mbapat te li grand bi am la booy bi bëgg mais bu dee côté doole gi Boy Niang gis nga ne euh, andi na doole. ji Boy Niang ko ëpp doole téeméeri junni yoon. bala barke Seex bu yamuñu. waaw loolu feeñ na sax si seen face à face bi ta yëngal boobi te dooleem jépp la def bi mu koy bëmax bi ko boobi laalee ca àll bala dali. runkum buñ ko defee laa ñu fori ko booy ko ëpp doole waxuma la ay waxantu de lu leer laa lay wax bu la neexee nga téye lii ne làmb la ko waxoon na ma ko booy bee ko ëpp doole foofu te bu àggee si kawam bu ne bu dalee ci kawam ci ginnaaw saako yi lañ koy foree lu ko mbër mës a def la ko boobi da koy daan ba toog si dënd bi. vaar ak ci yam man va vaar wax nañ ma ko ba taay daaw rek si Balla Gaye wax nañ ma ko naa ma dañ lay dugal vaar. mais Balla Gaye li ci Balla Gaye du Modou Lo. du ci Modou Lo waaye Balla Gaye moo daan Modou ñaari yoon. waaw d'accord naa. na li ñu li ñu wutee mooy Modou Lo am na hygiène de vie ba pare entraînement am naturel na yaramam ma nga fa ba tey mhm. jeexalul bàyyiwul toqiwul loolu la mooy différence bi ñoom ñaar waaye maanaam wàllu cëfal cëfaru làmb ak wàllu am adversaire bu metti ak wàllu bëre combat bu giitangaas bu xotteeku nga am ko ko bal komba Balla Gaye ak am ko keneen yamul mhm. li la Balla Gaye di teg mbër du la ko teg ci senegal mhm. ci pression ak ci xëbër xëbër ak ci yuuxu mhm. ah ak ci engouement li Balla Gaye am benn mbër amu ko pression bi mu lay teg. mais bu dee côté bëre bi ñu ne Modou Lo euh, Boy Niang dàqul bëre Modou Lo xam nga loolu. waaw la moo ko dàq bëre de mais man xam naa bëre Boy Niang xam naa li Modou Lo di bëre am na lu booy Niang am ci moom dañ koy fori laa la wax Modou loo gisuma lu danger si moom loo xam ne booy Niang da koy ragal am na lu danger ci moom lu jaaxal yeneen mbëri. ak mu def mbëru ma de Eumeu Sène premier combat ba moo bëree ba dee jël tànk ba sonn am am téeméeri penalty yàlla dogal mu war a daanu daanu waaw moo daan deuxième combat bi daa boole ñaari tànkam laaw gauche droite Modou Lo mbas ko door ko uppercut mu surux loolu kuy doo ko jàng bëre sax doo def loolu mais war a daanu moo waral loolu gauche droite la door tegale ñaari tànkam xam nga Ama Baldé keroog dafa ñëw yàkkamti wala tey jël combat bi au sérieux dal mu yàkkamti ba ga libéré daa di forcer song bi waa ji may ko distance daa koy tëroo ak ku làmbam yàqu mu force action te jàppul. booy ñaan ak moom jàngat na ci combat yi parce que ñun duñu ngaaka ñu seer xam na làmb dund nañ làmb topp nañ ko mbër mu ne xam nañ li lay daan suñu combat ak moom laa la wax dinañ jël sunu temps bu jëflante jotee ñu jëflante bu song jotee ñu song bu xaar jotee ñu xaar bu remise jotee ñu remise. kon booy ñaan moo ci kaw. déggoo ma de jot heure dem bu jotee rek dinañ dem. nekkuñu fi nag di xëy di dem de arbitre prix bi rek nga ne gëmm rek dem monter sa bopp nekkuñu ci loolu dang koy teg ci axe ba daan waaj. parce que xam ngeen ne ki ngeen bëreen daanaan la. daanaan la ko waaye li nekk si moom lu ñu yéem laa gisul loolu la ci Modou loolu jaaxal Boy ñaa gisuma ko du bagaar ba du dara te moom tànk pied gauche day teg. te jeexal mbaru Pikine. jeexal na mbaru Pikine dëgg la yàlla mooy def loolu Boy Niang ngi ni jeexal na géejawaay pourtant te daanul la de guerre te Balla Gaye la daan te Balla Gaye di am géejawaay bu mbër yëpp amee lenn moom am na téeméer bu foofu mbër yëpp fukk lañ fay am loolu dara ci làmb làmb di nga nenn benn gox di leen daan jekku leen di leen daan waaye combat bii laa lay wax nii nii nii nii Modou Xarañ Lo moo la gën a xam ni barke seex na seex saat day wax naan booy ñaar day naxi supporter am moom mooy nax ay nitam. combat booy bi du ko may dara yàlla xam na ni booy bi du ko may dara booy bee ko gën a bëgg la premier janvier téeméeri junni yoon. moo ko ci ëpp doole fuuf te nee na dafa mën a bëre ba suba boo ñaa mën naa bëre ba ginnaaw suba wala ba 2030 barke Serigne Touba Mbacke laa lay giñal barke Seexna Seex Saat bu li ma lay wax nii bind ko téye làmbala ko la ko wax Modou Lo bu ñu moom ba suba moom mooy bàyyi bu ñu doon siffler 10 combats 10 journée 10 fois ci jour bi boo ñaa da koy daan 10 yëpp le premier yàlla sunu borom mi dara tawul rek moo mën a wàcc ba max booy ñaa ne ko doo fi daanee lu leer laa la wax. boobe da koy daan ba toog si dënd bi dama la sunu borom mi dara tawul rek moo mën a wàcc ba max booy ñaane ko doo daan Modou Lo lu leer laa la wax te sunu borom du wàcc da koy daan ba toog ci kawam te ci géew bi la koy daanee amu sa ay demal ma ñëw da koy daan moom xam na ni day daanu de. parce que bii mooy seen teg jeexal bii moom bu dul teg jeexal sax àdduna moom kenn ku am nga sa teg jeexal ñun ñii nga xam ne du numbar dañuy ànd booy ñaar sax yàgg moom di sonn ci moom li ñu am fa teg jeexal yow mii di journaliste am foo xam ne jeexal nga fa am président yenn saa moo mu am teg jeexal adna ñëpp ay dund teg jeexal ak te teg dese fa dara ak amoo loo tegee ñun nag am nañ lu ñu teg dëgg la Pikine la tegal parce que ku tegal Pikine tamit da ngay jeexal ndax waa jeexal na Pikine waaye am na loo xam ne ñun mi ngi si ñun ñu téye ko te Sénégal xamuñu ko xameewuñu ko booy Niang mooy lan li nekk si moom lañ nangoogul ba waxee ñu ne day cof daw wala day day moytu ba daan wala day arrière wala day négocier billaahi le premier dinañ ko xam comme waa ji day dëggal boppam day giita ngaas xam ne musul am adversaire mi ngi doog am combat bu sérieux bu wóor bu bu doy waar mi ngi koy doog a am kuy xeex di bëre. looy wax Modou Lo nga ma lay wax kay moom bariwul man làmbaloog maay wax ak yow man làmbaloog wax ak yow maay wax ci turu Boy Niang numéro 2 càppaaculi may sa xari may sa mi ci njob bala koddu maana mbaay yërim wa am raho mi ne samaay xobbu rabbaani saayum sahaay mutu fa lambaay bala ma daawur ngéwél bala koddu maana mbaay ngéwél yi duñ la may dara maa ngi woo waa Thiès yëpp nag di woo waa Sambe bu baax waa Diourbel waa Niodior waa Koudiadiène waa Tivaouane waa Fouta ma ne combat bi waa Pikine tamit génn nañ waa Pikine génn nañ yoon la mobilise Pikine bu ñu génnul kuy génn Pikine lañ wax Pikinité dañuy génn rek force la boo ñaa jiwu leen lu ñuy bañ a génnee dafay wane loo xam ne dañoo war a génn am na ñoo xam ne bu ñu wootee kenn du ñëw boo ñaan dafay wane loo xam ni su wootee da ngaa a ñëw bu wootewul da ngaa war a ñëw boo ñëwul yow la mais li mu woote wone ko dañoo war a ñëw te ku xew la tamit dalay demal te yàgg naa demali nit kon moom bu wootee dañ koo war a wuy si waaw loolu la te boo ñaa ñàkkul dara surtout wàlliw la maamam daa toj Sénégal toj Afrique maam Cheikh Yérim ku ko xamul dégg nga ko fukki fan ak benn lañ ko suul fukki fan ak baa ñaar ñu sulli ko suuf taxawul ci yaram wi ko xamul alaaj sàmm ndukumaan borom kaawteef sëñ Fallou ko tuddee woon xam nga ko oto ba awul moteur sax daka daan yor ànd ak chauffeur am muy dawal di dem barki seena seex saat bu boo ñaa bu ko neexoon du bëre day toog di jël addiye waaw ñu koy ziar waaw fa mi bokk dafa baax ndijaayam da daan def ay kéemtaan bi mu fi jógee yàggul mu dasiru boo ñaa du nit ku ndaw lu fi waay tuddee sa maam taggee ko ko tuddee ko ko wala say mbokk am lu raw loolu téye ko ba pare toog dëxëñu ci wanewul boppam si dara waaw li ma la mën a xamal daal mooy la premier janvier ubbi leen seen bët xool barke Seyna Seet Saad ubbi leen seen i bët ngeen xool de ñëpp laa koy wax képp kuy topp làmb di suivre làmb ubbi sa bët nga xool bu booy ñaa dugg see yàlla xam na ni ragal du ànd ak moom ragal sax du tudd turu booy ñaa mm. sad le premier janvier ñu war a dugg si ci pelouse bi nii mm. Lambalogue jaar ne Malaw jaar na le mm. Masalla aw nii Cheikh Niang jaar na le nga gis Xadaafi nii gis Memba jaar na le gis ñoom Habib Sène ñoom Alexandre Dépidien xam nga nga gis ay ñoom euh, Dogol bu ndaw gis Zarko fii Zambala Grand Mbagnick ay ñoom Ordi père Dogol mm. père Adama Diop Papa Ndiaga Niang gis père Bourkhane père Mansour Diop barke Seyna Cheikh Saad bu jour boobu lay xam ni booy bi yorul encadrement bu ndaw yorul lu ndaw bien que nag yoruñu millions yi dul jeex ànduñoo ak ay doomu président xaritoo ñoo ak ay premier ministre ànduñoo ak basketteur bu yore milliard waaye am nañ lu ñu am nañ lu ñu téye loo xam moo gën xaalis am nañ ay nit am nañ ay borom kurus am nañ ñoo xam ne kóllëre moo boole ak ñoom te fu ñu jugee ñu jug fu suñu bët xonqee seen bët xonq bala première bañ dugg ci stade bi ba nga xool boo ñaa di nga xam ni kii ay caaxaan indiw ko de di nga xam ni booy bii du ay caaxaan du ay wax ay signature rek moom yomb na de taxaw ba ma ko yomb na mu rombale di dem nga wax yomb na waaye bu Arsenal bi dugg see bañ ne darees le premier janvier arène nationale barke Cheikh Saad bu jour boobu nga yuuxu yow sax di nga xam na di nga yuuxu waaw maa ngi nuyu ñëpp rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm képp kuy sant kuy gërëm kuy supporter booy ñaa mhm. di ko faral di ko topp di ko suivre muy ku bees muy ku màgget parce que nit moom àdduna noonu la da am mbokk yu bees mhm. am ñu yàgg am àndu daaw am àndu daaw jéeg am àndu ren mhm. maa ngi sant waa Thiès bu baax waa kër sëñ Ablaye Arcos koñ bi ma dëkk ma sant waa Guy Sombeel di leen woo di woo sama waa koñ waa Arcos noonu kër sëñ Ablaye Yàqin fi ñu denc sëñ bi ci digg tali bi Ablaye Yàqin borom bërigo yi maa ngi woo waa Mbambara Alilo waa Bayal Xuja Badiane koñu maamu booy ñaa waa R100 mhm. woo sama booy koñi bu baax ñoom Matar Fall Sadi bu daat Bamba Café mhm. xam nga ay góor a baax sama xarit la bu baax nekk fondeur ci Anga Sëñ Fallou mhm. dëkk Arlem maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm làmbaloog mi ngi woo ñëpp di gërëm sama benn jigéen bu naa naan ñanga dëkk Pikine fii di gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu Yacine boroom salon sopp Serigne Saliou maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ñëpp nag combat bi non violence di woo waa ñaa international bi national bi Boy Niang famille bi càppaacoli bi ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn parce que Boy Niang li mu woote mooy non violence moom loolu la woote loolu lañ ko nommé ambassadeur de la non violence waaw moom lañ ko woote moom la woote kon xool soxla ñu xuloo soxla ñu xeex jàmm lañ woote ak mobilisation ak calme ak sérénité ak mob ak lucidité dem daan Modou Lo ñibbi si Pikine toj waaw. ñëw rek waaw le premier dañuy zibile le premier. dañuy sibile de yàlla xam na ko waxuma ay caaxaan de te nii sibile dañ koy daan ba toog si bi si kàttanu yàlla. ayca merci beaucoup di kontaan ci làmbaloog macha allah moom nee naa la nit la koo xamante ni ku ne Boy Niang numéro 2 na làmbaloog li muy wax neex na te am na change macha allah mais nag wax na fi ay wax mais le premier incha allah rabbi dañ ko xaar diggante Boy Niang numéro 2 ni mooy Modou Lo roi des di wax yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaama ah. li leen indiloon seen émission mag bi xam mooy spécial làmb comme koy defee rek nee la Dakar bi pour saa su nekk fi lay xewee bëggee képp wax yaa doon bàyyi xel duñu suivre ci seen mag wax mu Dakar People Sam bëggee naa la kontaan naa ci yow taaw yaayam Aïcha tamit maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di kontaan ci moom saa su nekk ayaa moo nekk ci li nga xamante mooy waxukaay bi bëgg ci ñëpp kontaan ci ñëpp jërë ngeen jëf beneen yoon incha allah ci beneen numéro spécial lamb jërë ngeen jëf